waaw bu mu ñëwee dama ñëw si coronavirus bi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi lu bàyyul Màkka bàyyul Italie bàyyul Japon bàyyul France bàyyul Angleterre bàyyul Kenya sax bàyyul leen bàyyul benn dëkk bàyyul Sénégal kon kooku du fu bàyyi kenn dëgg la maladie bi am na nañuy raxas suñu loxo yi takk ay masque di moytu distance yi ñu moytu voyage tam c'est très important mais dafa am benn boo dama koy dégg mais daf ma neexul si affaire bi waaw ma koy ñaan la président Macky Sall ngir yàlla dama koy ñaan te yàlla moo tax quoi na respecté tamit na respecté bàyyi normu yi nga xam te ni moom la jël respecté tamit citoyen sénégalais yi gars yi war nañu lekk war na nañu naan nit ñi war na nañu job nekkuñu si guerre mondiale Baye Fall ñun Sénégal te nam su ay xool réalité te yàlla moo tax na nan topp suñu ay réalité affaire bi bu ñu ko jël jël boo xam ne ñu bëgg noot askan bi maa ngi dégg temps ñu ni wéy instant bi heure bi da kay da koy wàññi quoi ba waaw xaw ma désisteur mais loolu boo ko defee baax nga askan bi mais am na loo xam ne ma koy wax le président am na loo xam ne bu amee am na loo xam ne bu ko Macky Sall waxee askan bi ñooy fippu mu ne ñu ngi koy dégg nag ah dëgg la bàyyi xool ko feebar bi nag am na de je te dis la vérité ñu ngi koy moytu mais yenn yi ni bëgg teg askan bi non day xaar ñu fii du almaañ fii Sénégal la on est de nit ku ñuul xam nga nit ku ñuul. nous sommes des nit ku ñuul maanaam nit ku ñuul sénégalais on est fait être sénégalais Baye Fall affaire boobu noonu ah, le président Macky Sall ngir yàlla mais heure sax ba mais heure sax maa ngi yaakaar sax yow maa ngi yaakaar baa nga yokkaat ko sax somme quoi mais mais mais boo ko wàññee ba pare bàyyi weeru koor gi tamit mi ngi ñëw wa maa imiru illaa li yaabudullah nanu jaamu yàlla nanu ragal yàlla te buñ ko politique Baye Fall nanu waxante dëgg ba Sénégal nag moo bëri ay naafeq du ñu waxante dëgg tegante xel teg dil teg maayin le président Macky Sall maa ngi lay jaajëfal di la ñaanal yàlla combat bi nii yàlla na jeex a jàmm mais nga reculer som tamit si affaire de projet bi nii li nga signé gars yi nga def ko mais aide yi nga jox ko baa doole yi te aide yi ñuy joxe ngir yàlla am na ñoo xam ne boo leen joxee aide yi Macky Sall le président ñoom ñoo koy lekk ñooy tëdd doomu jàmbur yi le président am na ñoo xam ne baa boo leen joxee ñoo koy mujj jëriñoo ngir yàlla le man su ma sañoon sax ba armée bi sax moom mooy joxe aide yi réew armée moo ko war a yor parce que boo nekkee genre réew yu mel naka Sénégal ñu bëri ay bukki ay baaxooñ ba pare bëri ay kaña bëri ay siiru ah ñooñu boo tegee armée bi ñoom ñooy lekk nit ñi ngir yàlla le président boo amee luy séddale jox ko armee bi armée Sénégal man ñoo laa gëm man ñooñ laay wër rang muy dëgg.